ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën a jot mboolem vidéo dugal ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy doomi Alaaji Sëriñ may yamba yow si xuna xadim ñaajili woon birandaar yow Seexuna Ahmadul Xadim ku ko gis Sëriñ Seexuna ngay bi ko taxaw yéen ko tàgg ak bàkkaar ñaajili woon maa yomba yow Seexuna Seex Ahmadul Xadim yaay baay sa Mustafa xasiral ba bismillah yal mudu قدر من قلبي بالاعتداء لو سكوري بلا كفور فهو نزير منه في داء لو ترابي بالاعتداء لو خطابي ما اهتداء لك رداي لك سناي لك التجاي ما هجتي داي يا من شفاني يا من حماني حمل جنفاني بمحبي داي يا من سافاني يا من حماني حما جافيني بمهبدين أسب السوتاري أسل يومري كاس الخيور بلا كدين أسب السوتاري أسل يومري كاس الخيور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 xabibina wa xabibi xabibina wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi almujaddid almurabbi almuraqi faridi zamanihi wa munqidi ahlihi wa bilaadihi alhamdulillahi xamdan kacira ibadallah laqad manna allahu alayna wa jamacanaa mujaddadan fi haadihi albuqcati almubaaraka ixtifaa'an bi mawlidi rasuuli sala allahu alayhi wa sallam wa mudaakaratan li siiratihi alcaatira min xilaali xibbihi wa xadiimihi wa man nabacuu min manbacihi almubaaraka manbaci alxayri walridaa manhali alrijaali walawliyaa أيها الحضور الكرام تفضلوا معي نتدارس جزءا من حياة نجل القديم وخديم القديم ومريد الخديم يا جماعة هل لي أن أسميه بنجل القديم وهو من باع بنوة بنوته بالإرادة اسمه محمد الفاضل dalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim mbokki julit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ naa mi nga xam ni moo fi toog jataayub sunu waajur wu sell wu tedd woowu di Alaaji Sëriñ Géey ñu ngi tàmbalee kàddu yi ci sant yàlla yàlla mi nga xam ni moo ñu dajalewaat ci barab bu sell bi ci bis bu màgg bi bisub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan muy tàmbalik sunu kàddu ñaanal ki nga xam ni moo fi am jataayu xaadim Moustapha di cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu ngi ñaanal suñ ñu ngi ñaan suñ borom mu defal ko tawfiixi yàgg fi ñu ngi ñaan suñ borom mu defal ko tawfiixi mottali noonu ñu koy ñaanali cheikh Mouhamadul Muntaxa nag ndax ma nekk ci bopp yoon wi noonu lañ koy ñaanale sëriñ Cheikhouna mii nga xam ni moo toog suñu wet ni nga xam ni nag mooy cosaanu bis bi mooy màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ko sunu rak Cheikh Saalihu waxe léegi ndigal li jóge ci ku tedd ka mu histoire bu yàgg ba waaye ñu yeesalaat ko ci jàmbaare jamonoom di alxaji sëriñ Gueye moom nag dafa mel ni ren dafa tànn kenn ci njaboot gi muy Cheikh Mouhamadul Fadal mu duppee ko bis bi ngir jàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weesuwul jàng ay jikkoom loolu lañ mën a roy ci moom dafa am lu mu am loo xam ni jagleeg suñ borom la ak jagle mbirum yàlla la waaye suñ borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama la yónni ci jaam ñi ngir ñu roy ci yow ginnaaw dañuy roy ci moom nag lañu mën a roy ci moom lañu mën a jariñoo ci moom buñ koy fàttaliku war naa bokk ci ñuy fàttali moom muy lu rëy te yaatu Xaadim Moustapha dugg ci biiram ñun ñu seey ci biiram kon bu ñuy jàngale yonent bi sallallahu alayhi jàngale sëriñ Touba doy na sëkk ci ñun waaye jàngale sëriñ Touba dafa mel ni dafa yaatu dafa rëy kon jàngale ñoñam doy na sëkk ci ñun moo ne dafa mel ni jàngale ñoñam sax rëy na yaatu na waaye kenn ku nekk rek ñu jël ci ab bunt wala ñu jël ci ñaari bind yoo xam ni dinañ ko mën a yóbbaloo ba ba ñuy dellu siwaat Cheikh Mamadou Fadal may yi rëy na loolu kenn waxatu Cheikh Mahamadul Fadal juddu bi rafet na loolu kenn waxatu ko Cheikh Mahamadul Fadal mooy Sénégal loolu kenn waxatu ko waaye dama bëgg jël ci moom ñetti bind yoo xam ni bëgg naa ñu yóbbaale ko li ma waxoon daaw ci Cheikh Mahamadul Moustapha da koo bokk ak Cheikh Mahamadul Fadal ñett yi ma ci bëgg a dolli benn bi maa ngi ko jëmmale ci jigéen ñi bi ci des mu jëm ci ñëpp. bu njëkk bi mooy waajur wa waajur wu sell woowu mu am mu ànd ak xayrul Mustafa waaye ju sell ju baax jooju nga xam ni kenn xamul lu mu doon mu ànd ak moom ak sell ga mu nekkoon ci biir xaadim Moustapha ak liggéey bu rëy boobu mu fa defoon ak noonu mu wuufe woon njabootu soxna Aminta Lo googu nga xam ni ñoo jiitu woon loolu bind la woo xam ni kuy jigéen war nga koo bàyyi xel bu baax a baax ànd ak sang ànd ak ku baax dafay laajit yow sa bopp nga waajal sa bopp ndax liggéey moo indi ak pay jigéen ju bëgg a jur sang ca barab ba nga nekk dañuy wax ni barke baay waaye liggéey ndeykat te kenn képp ku fi nekk yéene nañ la la ngay am ci sa biir borom kër ci sa ci sa néegu borom kër muy lu sell te set te tey loolu nag dafa am caabi dafa am bunt bu ñu jàngalee mag ñu baax ñii ñu jàng ñu jëlee ko ci ñoom nañ ko seet rek ba ba àdduna di àdduna ba léegi ku fi suñ borom tànnal baay bu baax tànnal na la ndey ju baax kon jigéen ju bëgg a jur ku baax dangay ngay jaar ca foofu nga xam ni fa la jigéen ñu baax ñoo ñu jaaroon ñu ngi ñu ngi jàngale soxna jaara buso moo ne sëriñ Tuubaa de fadlullaahi ngëneelu yàlla la kenn xamul lu doon ci lumu lumu yi la bokk waaye moo ne bi ko suñ borom di wàccee da koo jaarale ci lu sel loolu lu tuuti loolu lu jigéen loolu waaye lu fag loolu lu sagu loolu muy soxna jaara kon jigéen ju ne mënoo waat mukk fa nga nekk ni di nga jur xaadimul Moustapha ndax loolu faat na wees na mu ne surtout amati nabiyul Moustapha loolu faat na weesu na Cheikh Mahamadul Fadal dootu dikkaat ci jamono faat na weesu na Cheikh Mahamadul Moustapha dootu dikkati ci ci jamono faat na weesu na ndax ñooñu xaadimul Moustapha la leen defar te xaadimul Moustapha dootu fi ti mukk benn la woon kenn la woon kot ñu dong ñoo ko am waaye nag jigéen ju nekk mën ngaa waat ni fa nga nekk mën nga faa nekk kuy sang fa mu ne kon mooy leçon bu njëkk bi nga xam ni moom laay jël ci waajuram wu sell woowu di soxnaa bu buso bu leen fàtte mukk ni Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak Mouhamadoul Amine Baara seen waajur bu jigéen teel la fay jóge soxnaa woo moomu moo moo moo leen wuufoon kon noonu nga xam ni noonu la jigéen ñu sell ñooñu ànde woon nag Cheikhul Cheikhul noonu la jigéen ñi war a góorloo taxawu ci seen sëy yi ba suñ boroom dimbali leen ndax bari na coono yu njaboot gi nekk ci jamono bi ñu nekk dara tegu leen ku lu dul doxin wu ñaaw wa jigéen ñi nekkoon ci biir kër yi kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax li weesu weesu na waaye li nekk ci kanam mënees na koo dabaatal kenn ku nekk nga góor góorluwaat ci kër ga nga nekk ak kañ la booleel ngir sang yi suñ borom a ngi koy waajal te képp ko jàpp ni li suñ borom di maye maye woon démb denc na ko sànni na ko dootul ko joxeeti dafa mel ni ci ñu réer ñi nga bokk alaaji sëriñ Gueye wax na ni yat wa yat wa sunu borom joxoon Seydina Muusa la ca doon jariñe mu ngi fi ba tey ndax loolu suñu borom doywu ko dara la suñu borom joxoon Seydina Isa muy jariñ doomu adama yi mu ngi fii ci suuf ba tey xanaa loxo yu sell yuñ ko teg rek moom lay laaj loxo yu sell yooyu nag dafay jaar ci waajur wu sellal boppam fag boppam fagaru boppam kon muy bind woo xam ne barab bii li tax ma jël bind woowu jëmale ko ci soxna yi dama gis ni li ëpp ci liggéey bi ak sellaayu liggéey bi ak seen taxawaay ci barab bi dafay lu rëy loo xam ne sëriñ bi seetlu na ko ñëpp seetlu nañ ko ñu yéene leen kilifa yu baax yii fi nekk ak yii ñëw suba ñu war ñuy war a jiite àdduna ngeen yor ci jàmbaar yooyu loolu nag dafa am lu koy maye mooy rey ci gaañooñu rey ci soxna yooyu soxna wa buso juddu juddu ba sell na ki ko yoroon sell na kenn xamul lu mu doon waaye moom ci boppam liggéey ba sell na kon nañ sell liggéey loolu mooy li njëkk ñaareelu bind bi ñun ñëpp ko moom muy muñ Cheikh Mamadou Fadal suñ ko waxee Cheikh Saalihu wax na ko léegi dafa mel ni bu ñu ko waxee rek tur wi day ànd ak ay xéewal ndax dafa bi mu bi mu toogee ba jumaa ji mat loolu mu wax leer na ñépp waaye laata xéewal yaa ñëw ay laata xéewal yaa ñëw laata xéewal yaa ñëw Cheikh Mamadul Fadal lépp luy doomu adama di jànkoonteel ci ay jafe-jafe ci xat-xati àdduna am na ci yoo xam ni sax sunu warmaal ko eggul ci ñu mën koo tudd ci jataay bi eggul ci ñu mën koo tudd nit ñi di ko dégg waaye lu doom aadama di muñ yaakaar naa ni muñ na lu ko ëpp kon nag loolu mbasin yu rafet yi nga xam ne moom lañuy moom lañuy juddu fekk sunuy waajur di ko sol nañu xam ni loolu dañ koo mujjee waaye njëkkewuñ ko seydina muhammad bi mu taxawee jabalu arafat wax waxam juré jooju ba mu noppee seydina omar mi nga xam ne moo ko gënoon a dégg ci àdduna dafa jooy ñu ni lan la mu ne ndax mat na te lu mat jeex lu mat rek wàññiku lay mujje kon basin yu rafet yi ak kër yu rafet yooyu nga xam ne ñoom la ñuy fekk suñu waajur yi ñu koy ñu koy tabax muy jekk bàyyi bo saay boo fekkee sa waajur rek na la wóor ni jaar na ci macc taxaar jaar na ci yu mett métti waaye dëgërlu noonu nga waxee noonu la ko Serigne Cheikhouna mi defee dëgërlu di lekk eh, di lekk cere joo xamante ne kenn xamul lu muy nuru te man nga mën a lekk leneen di lekk eh, ni ñu ko waxeeti ceebu ñebbe boo xamante ni yéeme na te mën a am leneen mën ngaa koo jënd foofu ngay jaar ak laaxi daqaar mooy jafe ngay muñ ku fi sañc ba barab ba ngay sanc nit ñi dafa ñëw lu ne dañ nga ko fa kon képp koo xamante ni ñi ñi ma koy njëkkee mooy ñi ma ko sañ a wax ñuy fekk seeni waajur ñuy ay kilifa ñooñu ñoo ñoo war a njëkke mbir mi seeni waajur sëriñ Mouhamadul Habib mii sañc fii ay waajuram dañoo sañcoon ni barab fekkul woon ay waajur yu yaafus sëriñ Saliou wax na histoire bi histoire bi dafa gudd lu yàgg yàgg la waaye histoire sëriñ Mayib histoire wala sëriñ ngi yem ci sëriñ Touba dafa day sëkk ndax dafa dafa dafa suur dafa dafa doy dafa mat moo tax waaye mënees na koo jéggi mu dem lu soree sori te lépp a sell lépp rafet mënoon naa yem lu ca ñooña waaye yëmu ca ñooña di wër di sañc dëkk di wër di sañc dëkk sanc dëkk yi ni mu ko sanc dëkk sanc yu naqaree naqaree naqare la nga ne yooyu nga xam ne moom la sëñ Modou Sow daan def nga yu mettee lu ne la ci sëñ Modou Assa sëñ Mor Assa daan daj lu ne sëñ Mor Assa daan daj kon du alal ju fi nekkoon du xéewal yu bari yu fi nekkoon waaye pas-pas bu dëgg bu wér moom la yoroon ak muñ te doyloo suñu boroom mi nga xam ni moo moo moo nekkal ñépp kon nag loolu dafay leçon boo xam ni dafa mën a dafa ñoo mën a jariñ tey mën ñoo jariñ suba damay wax ni li ñuy wax ci suñu kilifa yi muy lu rafet nañ ci jàng ñun tànk yi rëy na waaye nañu fexe ba buñ ci tegee nañ nañ nañ ci teg suñuy tànk rek buñ ci buñ ci tegee suñuy tànk dina dina sutux dina dina dina surux ndax tànk yi mag yaa ko gën a rëy gën a yaatu seeni yittee gën a rëy gën a yaatu waaye buñ ca tegee suñuy tànk tegaat suñuy tànk tegaat suñuy tànk lu mooy tege ca yoon wa rek loolu nag kon muy ñaareelu bind bi mooy kenn ku nekk fa nga nekk nga góorgóorluwaat jaajuwaat te xam ni jafe-jafe boo man di jànkonteel waajur wi nga fi ki nga fonk ci àdduna mu gën a rëy jànkonte nag lu ko gën a metti te kenn dégg ko tuubaa gii kat nit ñi eggoon nañ ci kilifa egg na ci bu soxlaa ndawal waxuma waxuma euh, li ñuy rey léegi nag di ko kii waaye ndawal gu mu def ci biir cinam am na ci ñoo xam dañ daan dem ba guddi ñu ñu jaar ci biir yi tokkoor dem ci nit koo xam ni da yori tokkóor ngir sàkk fa loo xam ni dañ caa mën a def seen ci seen ci seen cin ngir mu soppeek loolu nag léegi yaakaar naa dañ ko war di jàngale buñ ko fàtte mukk dama koy wax lu bare bari ma jëmale ko ci waajur yi maye seeni soxna seeni doom ñuy jëm ci kër moo wax ni ñu ci bari ci ñoom bu ñuy may bu ñuy maye seeni doom dañuy seet ku tane seen bàyyi ñu may ko ko ma wax ne ñoom ñoo ñooñu war nañuy fàttali seeni doom ba ñu ñëw ci seen biiri kër yi bàyyi lañu fa fekkoon te bari na ci ñoo ñoom ñoo xam ni ci ay pantere lañ wàcc ak i néegi ñax nga wàcc ci pantere ak i néegi ñax jur fay kuy yu ñëpp di bëgg bu fa nit ñëwee la nga war a seet ci moom mooy diine ak jikko kon yooyu dafa mat bàyyi xel bu baax a baax ñii ñuy wax kilifa yu baax yi ñuy wax am na ci ñoo xam ni egg nañ ci wuti soxna ci seeni mbokk ñu lànk bañ leen koo may ndax yàgg ndax xool seeni mbubb ñu woyof du ma tudd ci du jaar ci tur ndax ñoo ñi ñu wormal lañ waaye ñooñu ña ña nangu woon leen jox seenu njaboot ñooñu ñoo juri kuy tey ñu jiitañu yat waa ngoog kon foofu la mbir mi jaar kon leen lu nekk dafa am bu muy jaar suñ borom nag lu ko neex mu def waaye am na lu nekk am na fu mu koy jaarale kon leçon ñaareel bi mooy ñu taqoo muñ ñun ñëpp koo fi gis mu dem ba sant bis bu cant gi doyee ba ñëpp ni lépp doy na man ma tiit képp ku ma fi gis muy ñoŋ ñoŋi moo tax na sànce yi bari sëriñ bi na sànce yi bari ndax dañ laa soxla nañu ko jàpp ñu xam ni li fi nekkoon jugu fi waaye dafa amul yoon yoon wa nag bu ñu fa jaaree la Sëriñ Tuubaa doon wax ni aw yoon aku ñal la am ñoo aw aw aw ñal boo ca jaaree loo waddal mën nga réer romb dëkk te doo ko yëg te loo waddal deesu ko for dab la jox la ko aw yoon nag lu mu yàgg-yàgg lu mu sori sori di nga dabub dëkk walla nga dab ku la mën a wanub dëkk ko loolu mooy yoon ñaareelu bind bàngo ñetteelu bind mi nag ab tontu la boo xam ne ci ñiy wax ci jamono bi ndax jamono bi dafa ubbeeku léegi Cheikh Mamadou Fadal yaatalam eggoon na ci yërmande yàlla ji génnewu ci ku gëmul yàlla génnewu ci koo xam ni waxu ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu nag daf ko roy ci yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamii al wara ya hadiyan radda loolu sëriñ Tuubaa ko wax bi muy ñaan di tàllal loxoom suñu borom dafa xa daf da ko wóor ni yërmande suñu borom ñëpp xaj nañ ci yërmande suñu boroom ji ñëpp xaj nag lan moo tax aw nit taxaw ni yërmande suñu borom ji dangay ngay sol mbubb mu mel nii ngir man koo am da ngay da da ngay wuyu lu mel nii man koo am dangay ngay da ngay wax lu mel nii man koo am boo jullewul nii doo ko mën a am loolu kenn xamul lu mu doon te loolu moo xaw ci jamono bi lislaam ay jikko la boo ci génnee bàyyi fen lislaam nekkatu fa boo fa génnee wuruj lislaam nekkatu fa boo fa génnee tricher lislaam nekkatu fa boo fa génnee lu wax wax du lu nekk ci yow lislaam nekkatu fa innama bu'ithtu li utammima makarim al axlaq kon loolu mooy lislaam du leneen lislaam ay jikko yu rafet la aw nekkin la ab pas-pas la te bu leen fàtte mukk ni suñ borom suñ jaxate dégg naa nga wax ko waaye loolu arxuraan la suñ borom li muy wax muy jariñ doomu aadama yëpp waxu ko kenn ku dul ñiy gëm yàlla muuminu na bu waxee lu baax ba noppi muuminu la cay teg ñooñu ñoo ko moom kon ñooy borom pas-pas yu sell yu wér yi kon loolu lu mat a bàyyi xel kon nag loolu ñu ñu xam ni kon lislaam nekkul ci yooyu ñuy wax da ngay dégg koo xam ni dafay topp nit ñi boo nee diw sàngam mu ni déedéet barke diw mu ni déedéet boo ne nangam mu ni déedéet boo solee sa mbubb mu ni dafa gudd boo solee ndax moom dafa dafa war a gàtt naar bi nii la koy solee diw sàngam nii la ko doon solee diw sàngam nii la ko waxee woon boo demee ci téereb sàngam diw sàngam ak diw sàngam nii la ko waxee woon déedéet du loolu lépp Alxuraan a ngi fi te mooy sunu sëstal waxuma du waxuma nag waxee ku réer jataay bee may wut nekk fa di ko indi ay aaya ki nangam nangam déedéet li ma dama bëgg ñu dem ci essentiel li ëpp li am solo dëgg-dëgg mooy li yàlla soxla ci doomu aadama mooy xol yi xol bu sell te wér loolu la yàlla soxla xol bu sell te wér nag ci la suñ borom di fi leer xol bu sell te wér mënta am mukk te nit ki àndut ak ay jikko yu rafet yii bu àndee bu nekkee ci doomu aadama bi kooku kenn mënu ko génn ci yërmande suñu borom kon yooyu ñuy wax di ko jëmale dama yaakaar ne sax jërta tontu waaw ñii génn ci rajo yi di wax ni pas-pas sàngam pas-pas sàngam nangamu nangam eh, loo loo wax li ñu ni la li li bokkaale yàlla li nangamu nangam ma ñi ko xamul sax ñoo nappalu far benn ñu ko xamul te dégluwuñ ko ñoo nappalu far benn lii dëgg kon ñetti bind yooyu rek moom laa bëggoon a tënk ci kooku nga xam ni kenn mënta waxtaanee mbiram ndax géej la goo xam ni dafa dugal boppam ci biir Xaadimu Mustafaa koo xam ni du kon looy wax ci moom Serigne Fallou du taalibe ndax moom nee na moom nekkatul ub taalibe déedéet loolu moo ko waxal boppam ñëpp dégg ngeen nee na moom du taalibe nee na du sëriñ du ab seex bu bëgg a doon kiyam du doom ju bëgg a doon baayam kon booy waxtaan ci moom looy wax damaa xamul loolu di man xaw ma lu may wax ci moom su may wax sëñ Fallou ci ci nan lay waxee sëñ Fallou mooy ki nga xam ni moo doonoon taalibe Sëriñ Touba déedéet moom nee na du taalibu Sëriñ Tuubaa da cay seey Cheikh lu nee na moom du doom du doomi Sëriñ Tuubaa ndax doo doon day bëgg doomu baayam te bëgguta doon baayam kon lu du ma du ma wax ci doomi Sëriñ Tuubaa kon ci lan lay wax waaw ci moom daa dugg ci biir yooyu noonu nga xam ni mooy lumu lumu yi Sëriñ Tuubaa yooyu ci la bokk ñu dugal ko ci loolu rek dama mës a dégg xa Alaaji Sëriñ Gueye mu bari xam-xam moomu te sëriñ bi dimbali ñu ci léegi ndax am na foo xam ne mënuñu fa egg waaye moom bu fa eggee day day seddal xol yi bëgg ñoon mu bàyyi ndax ñooñu dañ leen a war a xamale dañ leen war a xamle jamono da leen soxla yi ñuy wax nii di ay tontu la ci maanaam léegi léeg boo déggee nit ni la nangam nit mënu ko da nga naan waa léegi moom yàlla su yàlla suñu borom moo wax ni man maay def lu ma neex ci ku ko neex yàlla moo wax loolu du léegi est loolu est-ce que damay dama loolu ab tontu la est-ce que nit mën naa doon ab julit bu wér te génn ci biir pas-pasam yàlla faalun li ma yasha dama ne ndax nit mën naa doon ab julit bu wér ba pare génn ci biir gëm-gëm ak pas-pas bi am suñu borom faalun li ma yasha mooy yàlla mooy def lu ko neex ndax loolu mën naa mën naa am ndax nit mën naa gëm yàlla ba pare gëm ni yàlla moom am na lu mën a def am na lu mu sañ te def am na lu mu sañ a def ndax loolu mën naam bu fekkee ni nag kon gëm nañ ni yàlla moom faalun li may yasha lu ko neex lay def ci koo neex la koy def kon ni sëriñ ni yàlla def sëriñ Tuubaa dañ koy bàyyi noonu ni yàlla def gaañam yi ñu bàyyi leen noona li nga mënut nag nga xam ni mënoo ko yow la yow la concerné yow yaa ko mënut waaye li nga mënut te nit nit mënu ko loolu nag wedd yàlla mënu koo weesu foofu la tàmbalee yàlla na leen yàlla musal ci loolu ndox ndax yéene wuñ kenn mu wedd yàlla ndax yedd wedd yàlla fa muy yóbbu nit yóbbu yéene wuñ ko kenn